Yeah, Salah Lake, Salah Lake, Fakala Tabarak. It's your homie Wade Moore, aka the philosopher. Yeah, aka the Nyanga Nabi. Alright, Fakala Tabarak. Donc nous uh, yeg mu nekk uh, sam première production boo xamante ni mi ngi sur le marché uh, ñu génnee ko mu nekk li ñu tuddee yëg-yëg def ci neuf track mu nekk loo xamante ni ñoo ngi ciy que. suñuy yëg-yëg li nga xamante ni war nañ ko mën a partager ak doomu aadama yi parce que avant toute chose dama yaakaar ne lépp loo gis ci àdduna rek yëg-yëg la quoi moo tax ñu jël titre album titre titre EP bi tuddee ko yëg-yëg quoi. yëg-yëg am na neuf track ah yow am na neuf track yaa am na géro di nga ci dégg géro doom di déglu kàddu baay caf ko maam maa war a wax.

dañu ko def 14 14 euh, avril def ñendaan show def sortie locale bi comme fofu moy suñu base def fofu sortie locale bi ba paré buñu ñu si jógee nag après si lañu soga ñew fi Dakar jàppaat dat toga génné ko le 13 bi def conférence de presse euh, vente des CD après nak soga jëm ci promo bi li nga xamanteni moy radio yi télé yi ak concert programme yi mais ñendaan moom mënuñu ko faté parce que moy premier. Euh, yeah, sumay wax man dama naan euh, rap lay def rap lay def. Euh, mais nekkul rab boo xamante ni dafa tënku ci ay concept maanaam a do a fiil damay def li nga xamante ni mooy sama yëg-yëg comme titre album bi ni ma ko tud ni ma ko tëdde euh, tuddee euh, li nga xamante ni moom laay yëg moom laay def mais dinaa def la tuuba képp ku koy déglu nag nga dégg ci rap quoi nga xamante ni lii c'est du waaye du génn rap. ok da nga waaye suñu travail nag ñoo ngi ciy liggéeyal ak label.

bon mom lañ ciy continuer di si joobal quoi pour promo bi. Euh, bon c'est pas du tout facile duma wax Sénégal rek sax mais fep rap mo nek musique bo xamanteni c'est pas du tout facile parce que dafa don lo xamanteni lepp ligay li ngay da nga koy teg ci code tek ci yoon xalaat que bien pensé des textes bien écrits euh, yow da ngay passer des journées et des nuits pour bind ay textes parfois nga bind ñëw xotti sànniwaat gis ni li kat bon yombul euh, li kat war na gëna nice nga jëmaat ci loolu nga ñëwaat ci côté investissement xaalis bi parfois dinga ci dugal loo xamante ni sax amaana duloo ko ci delloo mais lu ko waral mooy yëg-yëg nga ciy demee comme ni ma koy tuddee euh, yëg-yëg bi nga ciy am moo lay waral yow nga mën ci investir loo xamante ni amaana sax xëy na du ko génnee suba euh, mais ñun yàlla mi ngi ñuy dimbali nag ba loolu sax

mais àdduna du du lu yomb amul lu yomb amul du ma ni yoon bi moo jafe sax mais jafe-jafe mooy yoon bi jafe-jafe mooy yoon bi voilà kon chaque instant daal du ñuy gën di ko booster jë gën muy jëm si gën muy jëm si kanam quoi pour moo gën a nice voilà di wax ni yombul. ok yow sama dernier moom mooy euh, album bi génn na euh, na ko gars yi jëli incha allah nañ ñu xaar fépp ah Mauritanie Richard Toll Saint-Louis.

waaw di wax ni bon suñu album bi képp koo xamante ni bëgg nga ko jël soo ñu contacter suñu page euh, suñu page Facebook Wed Mo Cartel euh, dinañ la répondre foofu ci lépp euh, wala sama numéro manager ku ñuy wax Azou Gérard 77 271 21 93 77 271 21 93 di nga ko jot quoi yeah yeah bu dul si kaw show bi duma daanu man kenn si ñoom du tee ba du kaañu man fakatal am pagaay si yoon bi defuma tànku neen tax na du ma gaañu man philosophe fi ràpp tax philosophe di ràpp

kon c'est normal ñu woyé ma philosophe ba ne acc loxo ci kaw di ma naan monsieur monsieur monsieur monsieur monsieur monsieur monsieur monsieur non non interroger wu ma kenn ndax ma wara wax kon baissez les mains na gis alright fa kala tabarak check it okay jaajëf